Simon Kouka artiste rappeur membre fondateur du mouvement Y'en a marre waaw dañu ñëw réclamer la libération de Guy Marius Sagna qu'on considère comme un otage politique dañu ñëw tamit pour euh, maintenir ñaxtu bi que tey euh, contrat yi nga xam ne gazière pétrolier dafa war a leer ci nopp ak bëtu sénégalais yi et que euh, combat boobu tamit duñ ko bàyyi ndax ay ndax divertissement mais surtout surtout pour réclamer libération Guy Marius Sagna xam nga ku nekk ak li nga am ak matuwaay yi nga am ñun matuwaay bi la ñu am dox ñaxtu wala def toog ñaxtu tu vois pour maintenir ko parce que maa ngi koy wax sànq ñi nga xam ne ñoo ñoo la libéré yow libéré ma man bi temps esclavage amee bëriwuñu woon xam nga as néew la ñu woon te tey libération boobu noonu am na. colonisation ñi nga xam ne ñoo ko xeex as néew la ñu woon bëriwuñu woon concerné yi ñu bëri dañu doon toog seen kër wala di wax naan ah. xeex bi jaru ko de parce que tubaab bi du leen mës a kii malgré que noot noot boobu noonu mu ngi continuer sax parce que tey euh, am na ay euh, benn colonisation on va dire économique bu fi am malgré loolu mais il faut combat yu mel ni pour continuer ñuy continuer xeex pour que libération boobu noonu ñëw définitive te à chaque fois ay poignée de nit ñoo koy xeex donc li ñu ngi koy rafetlu on on se satisfait de ça quoi. ce n'est pas important saa waay mooy li ma lay expliqué ñi la xeexal yow sa colonisation bëriwuñu woon tey am nga ko même su fekkee ne se sur un papier wala c'est masqué am na loo xam ne am nga ko amoo woon droit ñëw taxaw fii nii di tàllal micro nit yi dañ la doon noot di la dugal ci ay àll ngay bay di la caw mais as néew ñu ko ñu ko ñu ko xeex yow sax xamoo leen xam jàppoo seen tur wala ñenn ngay jàpp ay Victor Solcher ay affaire yooyu mais ay Thierno Souleymane Baal kenn jàppul seen tur ay ñeneen ak ñeneen kenn jàppul seen donc il faut comprendre que ne on doit continuer maintenir flamme boobu te lu tax ñuy gis avancement tamit mooy genre manifestation yu mel nii ay pas rek nga fi doon gis ak ay partisans politiques mais tey ay ndaw ngay gis ay étudiants ay jeunes de dix huit dix sept ans vingt ans donc am na benn flamme boo xam ne mu ngi sax ci dënn yi te d'ici deux mille vingt neuf on en reparlera incha allah jaajëf. Thank xeex bi ñun ñoo ko yàgg di woote. bu ngeen fàttali ko première manifestation aar ci moo ko wax waxu ko fa. ci parax parax ay yàkkamti jàpp ko dañ ko sosal teg ko loo xam ne du moom moo ko wax gannaaw ba mu wonee ba mu leeree ni waxu ko ñuy jéem a wut ay luñ ko luñ ko luñ ko luñ ko sosal teg ko ci ka daram mais ban dëkk la ñu nekk ma nga xam ne ki nga wax ki nga xam ne day wax xalaatam ci nu ñuy doxalee réew mi ñëpp ko jàpp alors que ñuy saax saaxe alal réew mi di jël alalu réew mi di sàcc ëllëgu jeunesse bi di tax ndool gi gën a yaatu nit ñi di daw di dee ci géej gi ñooñu kenn waxu leen dara kenn defu leen dara bu dee sénégalais yi nag dañu ne bëgg seetaan loolu muy wéy ëllëg bu ndool gi gën a yaatoo jafe-jafe gën a tar buñ ko jooyee fenn dañu xam ne yàlla def ñuy fay suñu ñàkk liggéey wala suñu ñàkk taxaw bi ñu waroon taxaw ci taxaw bi xoolal tey ñii libi barki démb rek ay 60 personnes juróom benn fukki nit na for nañ leen ci plage yi tefes bi di leen suul ay africain kenn xamul fu leen jóge waaye ci ay réew yu mel ni Sénégal Ghana ay feneen foo xam ne ndóol gi dafa yaatu ba nga xam ne dañuy daw réew seen réew yooyu est-ce que di ngeen gis tubaab di def loolu est-ce que di ngeen gis chinois di def loolu lu tax nit ku ñuul rek di def loolu parce que ndóol gi fi la nekk loolu mooy combat bu ñu war a xeex ñu ngi leen di gërëm. tout le monde devant le camion. bu kenn nekk si ginnaaw camion bi. ñëpp. yeah. aha. ñaata scandale. ñaata ñoo am couverture médicale. ngay saraxale. loolu moo fi jeex marche doom ji am nañ ma ko libéral gi Mari Sagna mi nañ jàpp si yàlla ak yonent bi te ko te ñu libéré maam Adama Gueye ndax fi la nekkoon lu nëbbatu rek mu wan ñu ko gi Mari Sagna fi la nekkoon di xeexal population bi li war suuli nañ ñu dimbali nañ ñu dimbali nañ ñu dimbali te ñoo yuuxu wooy libéré gi Mari Sagna eh, libéré, libéré, libéré, libéré, libéré, Aliou Sall, Macky Sall, waaw waaw libération Guy Marius Sagna euh, yoon la mu yokk ci parce que yoon la ñu taxaw soigner soldat bi mu wér mu continuer le combat. kon tey instant yii ne amul bàyyi ndax tamit marqué woon nañ benn pause waaye dafa mel ni léegi xeex mi dootul taxaw. marqué woon nañ benn pause. libéré euh, condition oblige wala événement oblige. libéré parce que xam nañ ni aussi. dafa amoon ay dox. sunu pétrole sunu pétrole tey dañu ñëw euh, ñaxtu pour suñu pétrole ak suñu gaz dellu si ci gafa Sénégal parce que euh, arrestation Guy mari Sagna euh, façon la pour divertir ñu naturellement dañu war a taxaw pour taxaw combattant bu nekk boo xam ne dañ ko jàpp ci lu dul ci lu yoon te mooy kaaw gii mari Sagna kon xeex bi dañ ciy intégré libération mais Guy Marius Sagna ci boppam def ñu ni ñu ñuy vigilant bañ a dévier xeex bi ci libération bàyyi pétrole bi ak gaz bi donc yaa ngi dégg ñu naan pétrole bi ak gaz bi

Alioune Sall doo tabaskee sama 400000 Aliou Sall sama 400000 doo ko tabaskee jox ma sama 400000 dama bëgg a tabaski Aliou Sall jox ma sama 400000 doo ko tabaskee doo ko tabaskee. dajal ma Aliou Sall juróom-ñaari kaso juróom-ñaari kaso dajal ma ko dajal ma Aliou Sall juróom-ñaari kaso Khalifa Sall dañ koy libéré ndax yaayam mu ngi wax bay sonn yaayam maa doon sonn yërëmal yaayu Aliou Sall yërëmal yaayu Khalifa Sall naaw Aliou Sall ma ne sama 400000 doo ko tabaskee laa la doo tabaskee sama 400000 Khalifa Sall libéré ko mu tabaskee këram yéen Malick Sagna libéré ko Tabaski këram yow Macky Sall yow laa wax Khalifa Sall nag yaayam wax na ba ma yërëmal yaay Khalifa Sall. sunu pétrole sunu pétrole sunu pétrole sunu pétrole tabaskee Alioune Sall doo tabaskee sama 400000 Alioune sama 400000 doo ko tabaskee jox ma sama 400000 dama bëgg a tabaski Alioune Sall ma sama 400000 doo ko tabaskee doo ko tabaskee. Macky